constaté nañu également ne population bi Sénégal comme nous jàmm ne moo jàmm rek mo mën tax am rew développé mën am stabilité depuis ce matin fo laajte ci Sénégal ci presse bi né nañu nit génni nañu en grande masse pour dem ci lieu de vote centre de vote bureau de vote pour assumer assurer euh, li nga xamné mom lañuy xaar ci ñom moy voter dans la paix et la sécurité fi ci HLM HLM euh, Grand Médine lañu constaté man en tant qu'ancien ministre de l'intérieur wax dëgg yalla tay li ma gis dal na sama xel ci euh, population bi un comportement d'abord ndax nit ñi mom nit ñep ay sénégalais mais bu arrivé ci bi toujours yalla may nañu ñu am dayo bu ne ñu xam ñun ñep ay mbokk lañu motax may ñaan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 qui concert des nations loolu liguey bobu dañ ko wara continuer ci Nations Unies ak fenen ak fenen pour que Afrique gëna jël place am dans le monde salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu est-ce que vous votez dans quel wa kon gars mu nekkoon li nga xamanteni lancer nañ len ko ci direct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 buku pasir Parcelles Assainies merci beaucoup gars